oui aja mbokk Samagal TV mbokk internet yi ngi fii ci dixième édition JEPROC eh, ma taxaw eh, box boo xam ne macha allah eh, kii fi taxaw dina nuyoo léegi muy Ibrahima Diagne kii la nuyu naa. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Samagal di nuyu mbokki Sénégal mbokki adduna bi. Mhm. champion Cissé ñu ngi lay nuyu di rafetlu sa teewaay ci dixième édition foire JEPROC bu Louga. Mhm.

Euh, te soo seetloo yaa ngi ma mujjoon a interviewé yaakaar naa foiru Saint-Louis. mu nekkoon euh, Tekruur doomu Tour Eiffel bu góor boo xam ne indi woon naa ko mu ànd ak ay euh, rakkam ak i magam. Mm-hmm. tey jii nag damaa indi ay doomu Tour Eiffel ñu nekk ci box bu mag bi. waaye itam indi ay seti Tour Eiffel ak ay seti xar yi nga xam ne jotoon nañoo jaar ci sama liggéey ah ñoom ñëpp ñu nekk doomu Taysir Taysir nekk doomu Napoléon waaw yaayu Taysir itam nekk doom booy batu boo xamante ni moom mooy maamu Miss Darmanko bi nekk ci Aziz Darmanko mhm. mais wala Fatick wala Kaolack la ndaje euh, je ne sais pas jàppatuma mais foire man bi ma mujjee exposé Saint-Louis la kon damaa yaakaar dajewuñ fa kon. Euh, yow maa yow Fatick wala Kaolack parce que am na benn. Euh, non Kaolack woon itam. non Fatick Fatick laa mujjee exposé waay merci Fatick lañ fa lañ mujjee am interview ak Tour Eiffel ak ay jabaram Tour Eiffel allah mhm. boobu laa mujjee rappelé bu nu mujjee def voilà euh, Tour Eiffel ak ay jabaram mu ma indi loolu euh, Fatick euh, macha allah ñu def émission bu neex voilà def naa fa lañ mujjee daje tey nga ñëw Tour fu mujjee ak peut-être defe naa ni jaar naa ci yoo xam ni gis naa fa ay doomu Tour Eiffel waaw ay doomam bari nañ fi waaw ay setam tamit bari nañ fi waaw ndax euh, sama grand Bachir Mbodj. waaw exposé na ay doomam exposé na ay sëtam. Mhm. Mbaye Sow mi exposé na ay doomam exposé na ay sëtam. Mhm. bokk Serigne Moustapha Gueye bi nga xam ne moom ma jaayoon Tour Eiffel moom itam. aduna dox na ba mu jëndaat ci man ñetti doomi Touré Fell yu jigéen moom itam exposé na ay doomam exposé ay Allah. de même que am na yeneen box yu mel ni nongo faal ak yeneen éleveurs yu bari yoo xam ne exposé nañ fi ay doomam maanaam ñi ngi gis daal njariñ boo xamante ni Touré Fell bàyyi na ko ci élevage Louga muy jeexital buy am ci diggante doomam ay sëtam par rapport ak seen i robe par rapport ak seen couleur yi nga xam ne moom moo nekkoon ci seen papa macha allah mhm. tey euh, ñaari añoo yi nga ne kanatal kan ci box bi lan moo fi nekk box bi ñu nekk euh, ñetti xaar laa fi exposé mhm. muy sangomar ak euh, jobu fall ak cheikh Sangomar ma tudde ko Ndey di sama soxna si mag uh-huh. Sangomar booy xool doomu Taysir la nek sëtu napoleon uh-huh. mais yaayam itam dafa nek satu MB 14 ak Bidé bu Fàq doomu Bidé bu faq lañu ñu jox doomu MB bo xamanteni ni si itam yaayam satu machallah bu Papi Jéy la ñu jur ko mom mu tollu ci 8 mois ci man la juddoo ah, ñom ñi xar yi ma exposer yépp ma leen yaay mom yaayam mom moy numbé di femelle bi nga xamanteni si moom nek ci eh, box numéro 1 bi technique wala cornet bi. bi nga xamante ni moom moo def euh, deux fois meilleur LCS Louga. muy natt bi ñu nattoon daaw ci koor ak bi ko jiitu woon. Euh, nekk femelle boo xam ne itam femelle bu ràññeeku la te base am incha allah bëgg nañ koo garder à travers doomam bu góor pour mën a continuer liggéeyam moom moo jur Sangomar. moom moo jur Sangomar ak madame Diagne wax. Sangomar am na 8 mois ah? ñoom ñaar ñu ngi ci 8 ñoom box bi ma exposé yëpp ñu ngi ci 8 mois. moo ci kan. madame moom mooy euh, kii. moom waaw soo xoolee. ñaar eh, dañoo xaw a nuroo boo xoolee ñaari añali. ñaari añali ñoo nuroo parce que seen yaay yi ñoo bokk yaay. Ah. seen ñaari yaay yëpp ay doom bi deux fois la ñoo bokk yaay. ñëpp lañ am waaw ok. macha allah mu nekk une peu box boo xam ne ay añal ñaari añal fa ne ak añoo fële. beneen añoo mi ngi fa ak trois familles n'est-ce pas wala. waaw fële trois familles yi fa nekk soo xoolee madame madame Fall la moom moo yor mbote bu ndaw boobu ma la présidente di président Ali Cissé. Uh-huh. itam eh, madame Fall nekk doomu Touré Fell yaayam nekk doomu MB14. waa tet nii bu noir bi waaw moom booy xool tet tet nii la mhm. mais da ngay gis ba tey robe Tour Eiffel bi di ñëwaat ci moom mu nekk ba tey moom itam surtout MB 14 MB di wane li nga xam ne moom moo continué woon ci commencé woon gétt gi ba léegi ndax MB fixé petit Birahim la woon boo xam sëñ Moustapha Gueye moom moo ko joxoon mais ñu liggéey woon ci base de femelle téye woon ci moom booy xool MB fi ñu mooy maamu numbe waaye moom mooy maamu madame Fall mi nga gis jeexital boobu ci ñoom ba léegi moom euh, mu ngi ñaari porte moom mi ngi ci deux portes mhm. euh, euh, moom mooy Ramadan moom itam mi ngi ci deuxième portem uh-huh. euh, nekk doomu Tour Eiffel yaayam di Café Touba nekk doomu Assane 2 doomu Assane boo xam ne yaayam doomu Bintu la bu Algor nga xamante ni Moustapha Baye Fall bu Touba fi ñu toll moom ci moom la xar bi ne waaye moom moo ko jëndoon ba muy xale ci maa Ibra Diagne jëndaloon ko benn xaritam man ma jëndaatoon ko ci ñoom ginnaaw balaa ko joxee sama éleveur bu nekk Touba ba mu egg ci loxol Moustapha Baye Fall. macha allah. Mhm. léegi nag ki ci des mooy yaayu Sangomar. waaw kooku moom mooy numbe numbe moom doomu wulli la wulli nekk doomu MB 14 yaayam nekk doom bi déewu fàq waaw jeune mâle bi jeune bi kooku mooy Rambo Rambo nag nekk doomu Taysiir ba tey nga gis ni moom ak Sangomar ñoo bokk benn euh, papa moom itam yaayam nekk Teya Kapër Teya Kapër nekk doomu Touré boo xamante ni si sëtu àll la ba tey parce que doomu àll bu góor moom moo tëb Rabia mu jur Subi Subi ñu teg ko ci Tour Eiffel mu jur Taya Kopa. macha allah mhm. moom am ñaata moom. moom mi ngi ci huit mois ba léegi. macha allah léegi ñaari agneaux yi loo ci bëgg. ñaari agneaux yi sang euh, Rambo juste dama ko indi pour exposer ko. parce que joxe naa ko waaw sama benn grand frère boo xamante ni mi ngi dëkk mi ngi dëkk euh, Richard Toll. waaw ah. Badou Diagne. moom laa ko jox incha allah ci biir foire bi laa bëgg par jamanka ma joxaale ko buy ñibbi. mu yóbbu ko parce que itam. éleveur bu fekkee dafa ñëw ci càmm gi nangoo investir yenn somme soo ko joxee xar yool na nga gunge ko ba mu dëgër te seet naa ni côté boobu xaw na bari yoo moo taxoon ñu téye fi xar bi depuis bi mu nekkee jeune mâle ba léegi fi ñu toll allah xar bu dëgër la yaakaar na ni bu demee àggale liggéey bi woon moom dana gën a yomb incha allah macha allah champion euh, bi neex na rafet na euh, ñu ngi kontaan tey la mooy message bi dernier mot waaw message dernier mot bi def lu dul kontaan di gërëm waa euh, membre GEPROC yëpp waaye itam di gërëm bureau GEPROC yëpp particulièrement président Aliou gis nañ coono bi nga xam ne daj na ko ak ñi mu bokkanteel ndax ku gis euh, ñaari chapiteaux yi ñu fi taxawal nga xamante ni si GEPROC màgg na bu baax a baax a baax ndax suñu foire yi passé yëpp benn chapiteau moo daan taxaw tey nga def ñaari chapiteaux bi ci gën a tamit mooy exposant yi ci ëpp jóge Louga loolu itam nekk fierté bu rëy te ngay gis niveau yi ba tey dafay gën a kawe allah gën jëm kaw kon ñi ngi sant ñëpp di 480 37 38 ñaari numéro yooyu bu ñu ci woo danañ ñu jot. même itam suñu compte Facebook bergerie Mame Madiagne Thiend ak euh, TikTok ak euh, format yëpp yàlla dogal na am nañ ci compte képp koo xam ne recherche na dana gis bergerie Mame Madiagne Thiend. kontaan ñoo bëgg a